عما سلينا بشرفه عن نسياته كلنا تخو بشمالي لرسياته حمل سليما بشرف عن نسياته كلنا تخو بشمالي لرسياته عم سليمان بصرفي المسياتي كلمة تخد سنامي رسياتي أبعد تدار قلبي حسن بجدها هو جعل الهدى بالمبرات أمس بطيب نفسي كي أميل لها وما لم يلقى البين للغديات وقاد بني ما يدعو لقبته وأثر الصدق رهد برقيباتي فلن تجيني وترني جوائزك وطال لي تهدي بالبشارات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 noo ngi sant yàlla bu baax tey julli ci yonent bi alayhi di gërëm si Ahmadu Bamba xaadimal Mustafaa di nuyu bokk jullit yëpp bokk taalibe yëpp di jéggalu ñëpp da leen baalu xaq te da ko baal tey ñaan suñu borom boolu ñu jéggal ci barkeb si Ahmadu Bamba xaadimal Mustafaa barkeb Seydina Omar mu mel ni dañoo daje fii ci dëkk bu tedd dëkk bu màgg dëkk bu sell ñu koy wax Daaru sakoor Gelongal dëkkub Serigne Omar Mbacke moom sëriñ Mbacke Ibrahima ñu gën koo mim ci sëriñ Omar Mbacke Gelongal mu mel ni dañ fee dajaloo tey jii muy bis boo xam ne bisu fàttaliku la bisub ñaan bisub sant ak xéewal waaye fàttaliku it ay xéewal ak teraanga muy jëm ju tàdd ju màgg ju barkeel joojee ñu di ko defe fii ci dëkk bi tàdd bii ci ndigalul ay njabootam ku mel ni sëriñ Thierno Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci bopp bi ak sëriñ Mame Balla mbakke ak sëriñ Fallou ak ak jabootam yépp ñu àndandoo teew ci barab bii di fàttaliku jëmm ju tedd joojee mu nekkoon koo xam ne kenn la ci sëriñ bi nekkoon di ab taalibeem nekkoon di rakkam nekkoon di ab soppeem di xaritam di wóolareem di lépp sëriñ bi doyloo woon ko nekkoon ku bàyyi woon xel waaye mu nekk koo xam ne lépp lu nekkoon ci moom lépp sëriñ bi moo ko def ci moom ndax sëriñ bi moo ko yar moo ko dalal alxuraan jàngal ko alxuraan jàngal ko xam-xam moo ko tërbiye tasfee ko tarxee ko tasfee ko ba lépp loo xam ne nii daal ab jullit wala képp ku bëgg àgg sa diggante sa borom da nga fa jaar ngir man a am eh, jaaruwaay boobee lépp sëriñ bee ko defal mu nekk koo xam ne dundam gi lépp da koo liggéeyaloon da koo jeexaloon ci liggéeyal sëriñ Touba ak jaamu yàlla te loola moo ko indi woon ba ci dëkk bi mu gor ko ngir lan di fi jaamu yàlla di fi liggéeyal sangam bu tedd ba waaye it di fa yar ay nit di leen sellal di leen maraleeg seen borom mu sancoon ko ci jamono yi mille mille mille neuf cent trente six ba mille neuf cent cinquante trois bi fi jugee bàyyi ko fi dem àjjana ju tedd joojee loolu lépp fii la ko nekk mu dëkk di ci di fi jaamu yàlla di fi liggéeyal ak boole mbokki taalibe yi fi nekkoon ñëpp di leen yar ca loo nga xam ne moom la sëriñ bi defoon ci moom mu dajaloon fi ay nit ñoo xam ne lépp da ko doon defaat ci ñoom sëriñ bi rek ñoo doon ko mu doon ko xeeñtu mu loon ko léppam te it loolee nga xam ne sëriñ bi moo ko ñoroon mu doon ab taalib bu bër li ci joxe firnde mooy ne ku ne xam ne ne sëriñ Omar moo sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Fall ñoo maasee ci ayat ci saaxir ñoo dalandoo jàng alxuraan jàngandoo xam-xam lépp ñoo ko defandoo waaye keroog bi fi sëriñ bi jógee ba ab liggéey mat keroog la la feddliwaat ak laxasaayam takkaat ndigam fas yéene àndaat si Modou Moustapha fas yéene na ma àndoonoon sëriñ bi mu àndiwaat ko moom loola kon firndeel na la sëriñ Tuubaa rek moo ko ñoroon ba yàlla dogale ba Seex Modou Moustapha jóge fa it noonu la feddliwaat ak laxasaayam ci ginnaaw sëriñ Fallou ànd ak moom di liggéey ba ni ni fi jógee dem ci bar sax kon moom sëriñ bi rek la doon xeeñcu moo ko ñoroon moom la gëmoon moom moom la sopp moom la doon topp te it wax na ne ñeent fukki at yi masa ak sëriñ bi lépp lu ko sëriñ bi mas na digal def na ko mosu ko seen ci lu muy tere te lu mu ko mas wax fàttiwu ko loolu nag ab cër la waaye ak jagle la waaye it loolu pàgguteeku sëriñ bi la waaye it nag mu nekkoon ko neex a defar ndax la ko waral mooy dafa am waajur yoo xam ne ñoom ñoom it ci loolu rek la ñàkkoon muy jaamu yàlla ak liggéeyal bi yàlla dogalee bi sëriñ bi feeñ ak may yi ak jagle gi yëpp it liñ nekk nekk ay waajuram dañoo maase wàññikuwaat laxasaayuwaat toppaat ci ginnaawam jiital ko xam ne mooy seen lépp loolu nag ah, muy nangu ab dogal waaye muy ak cat muy ak sant gu loolu nag ci biir loolu nag comme ci la dogal mu feeñ ci moo tax mu ko xam ne dafa ñëw indaale ngërëm indaale ak nangu indaale lépp ba tax ne mu nekkoon ko sëriñ bi gërëm mu nekkoon ko seriñ bi soppoon comme comme bàyyi woon xel lool ndax eh, démb rek maa ngi ci waxtaane kilifa mu ne moo Modou Gelongal da daan wax ne sëriñ Omar de nee na nit ñeenti xel rek la ki am xelam gudd te rafet ak xelam am xelam gudd te ñaaw ak am xelam gàtt te rafet ak am xelam gàtt te ñaaw mu ne ki am xelam gudd te rafet kooka waliyu la ki am xelam gudd te ñaaw saytaane la ki am xelam gàtt te rafet kooku nit njaay la ki am xelam gàtt nag te ñaaw dof piir la loolu nag ki ko wax xel mam génne ak xalaat boobee xam na wane na kon moom lam doon kon xam nañu kooka nit ku guddoon am xel la te rafet la ko te it loola ànd gi ànd ak waa kër Serigne Touba yi feeñee ci lool ci wóolu ko wóolu woon ci am xelam mu rafet bàyyi woon ko xel ba lépp loo xam daanañ ko def daanañ ko ci bàyyi xel ci taataan am xelam kon wane woon na xelam mu rafet ak ñawam ak xam-xam bu rafet. mu mel ne kon tey jii moo tax ñu dajaloo fii ci Gelongal fii ci kër Serigne Mame Balla Mbacke moom Serigne Omar Mbacke Gelongal ak kër Serigne Mahmoudan Mbacke ndax ñoom ñaar dañuy ñaari tur waaye jënn jëmu lañ sëñ Mahmoudan ak Serigne Mame benn jenn jëmmu jëlañ kon ñoo dajaloo fii tey jii di fàttaliku sëriñ Omar Mbakke di ko ñaanal di ta di taas ci moom barke di taas ci moom it xéewal mu mel dëkk bi nag dañ ko umpule waaye dëkk la boo xam ne dëkkum nangu ñaan la dëkku far ay njëgal la waaye dëkk la boo xam ne képp ku fi ñëw lépp loo fi yéene te sàkko ci sa xol muy dëgg bu soobee al aaj jooju doo ko yóbbaale jëpp aaj ju fi indi doomu aadama indi boo ñëwee boo seelalee bu soobee yàlla xaal balaa ngaa dellu ajjooji dana faju kon nag loola rafet na ñoom xam giñ ko xam te xam ne sëriñ Omar ngëneele kese la loola moo tax ñu dajaloo fii ñëw di ko fàttaliku ngir bëgg jul yëpp ak taalibe yi ñëpp mën fee dajaloo ba mën a taas taasan taataan ci yiwoo ci ba mën koo ñoo ndax ñoom kenn ku ne xam ne seen waajur wa liggéeyal na defal na la loo xam lépp lu ñu sàkk àdduna ak alaaxira am nañu ko waaye nag noonu la ñu bëgg ñu jariñu ba tax mu ñuy dajaloo fii de ko woote te it dañoo xam ne xinda sikru saalihin tansidu rahma maanaam di fàttaliku wàllu yàlla yi gaa yu baax yi dafay wàcc yërmaande suñu borom subhanahu wa taala kon loolu moo moo sabab ñu dajaloo fii ci ci ci Daaru Sakor Gelongal at mu jot jàng fi ay kaamil yu bari def ay xasiida def salaatu ala nabi def ay berne bokk yi dajaloo fi ñoo dajaloo waxtaan fàttalante ci ak taalibe fàttalante ci ak njullit ñu man dajaloo ñu tasaaroo ba yeneen jamono kon daal tey jii ñi dajaloo fii ci kër Serigne Mame Balla mu Serigne Omar Mbacke ak sëriñ Mahmoudan moom sëriñ euh, euh, Omar di ko ak bokk julli ak bokk taal ak bokk dëkkandoo yëpp ñoom ñëpp ñu dañu xëyee ba tey ñu ngi fi dajaloo ñoom ñëpp kenn ku leen fi ñëw di saafaxante bokk yi ñu fi daal noo ngi santaat ñëpp di gërëmaan ñëpp di jégalu ñëpp ndax suñuy kilifa sëriñ Sidi Mbacke moom sëriñ Mahmoudan mi ngi di toog te di suñu kilifa ak mboolem kilifa yi nag jotaay bi xam naa dañ ko gën a yaatal ba ñoom ñëpp ñu gën leen a mën a xàmme ba kon nag yéen waa télé bi noo ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom defal leen tawfeex defal leen ak lépp loo xam ne bëgg ngeen ko ci liggéeyal diine ak tasaare ko suñu borom jàppandal leen ko baax ndax liggéey bi ñuy def fii yéen ñi bokk ngeen ci ñi nga xam ne yéen ko mën a yaatal man koo tasaare ba adduna bépp mën cee jariñu kon nag loolu ñoo ngi leen ci sant baax di leen ci gërëm di ci ñaan ngeen daje ci tawfeex Seydina Omar moom ñu defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu